wuy ji muudu mbàkke moom baare sëriñ bamba woona waa bamba woona waa jiiri ñëw ñu dem tuuba wuy ji muudu moom baare yàllal baare yàllal baari sëñ Bamba woote na géej am ak jéere sëñ Bamba nee na ñëw leen sant le ma yàlla saa boroom la ko dale ci ganaar ba ci gëléem bul xeeb ganaar bul yéem gëléem sëñ Bamba nee na ñëw leen sant le ma yàlla saa boroom yéen ñëw leen sant ma yàlla saa boroom sëñ bamba mosoon naa fanaan jeewal ba muy dem ca jeesa sin ñu woon ko fa mboolem lay xew xaloo xew ba dem Tuuba mënoon naa waññee koo foofa waaye kon am mayem mu am booleeg jaloori Sëriñ Tuuba Bamba tabax nga fi jàkkay doj judul mabbu fi Tuuba andil nga nu ay wërsëg yu doy yaanu danga togg sootal jox nu muñ yow ba dem Tuuba nga nu mbaaxaan ak joxor a kumba caam ci islam te waajoon nan ba daaru ak Tuuba andil nga nu ay wërsëg yu de yaanu jàmm loo da jox nu mu ñëw ba dem Tuuba ataaya kafe taalaale baawoon xamul koon ndax xaara xorom lañ daa baxal door a xëy dem Tuuba alarba ak dibéer lañ daa demal doomi soxna yow nga jox ñi mënuy daw di sellal ba dem Tuuba duniyaa ji ay leeral mu jundiine kon du baax dogoog yow du li nasaraanu jërëjëf sëñ Bamba jërëjëf sëñ Tuuba karaamaati xar baax ak wilaayaati mbooti xol ku leen mës a am sel boo ku dul yow Sëriñ Tuuba ku dul yow da muy Tawfekh jugee